yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak TFM di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon si saa su ne di am mbégte di ci ànd ak yéen naka doonu soxna Ngone Ngom Guèye maa ngi lay ziar Ngone xibaar yi bokk na ci takk der yu commissariat central am Ndakaaru yu wóolu ci convocation Serigne Mouhamadou Kara Mbacké Noreydi ginnaaw si lañu dem fekki ko këram ndax taalibe yu ne fa jur ca ñoom euh, lu nu bëgg rek di tënnu yi ay taalibeem di sol mu daal di dakk mu tegu ci kaw euh, tere gu tukkee ci ministère intérieur ngir kon lépp lu jëm ci wàllu tënni ñu baaxee ko euh, takk der ak force de défense yi civil yi bañ caa dugg tey bis bu mujj bi ngir parti politique yi bëgg daal di déposer seeni liste ngir élection locale yi juin 2014 am nañu ba tey minuit app bu mujj daañu leen demal ca sous préfecture ga duy déposé yooyu liste ànd ak Ibrahima Kane wàllu gëstu Abdoulaye Wade ak ki doxalinam fan yi lay ñu gis ne euh, dina ko jural njariñ am ñu gis safaan wa donte nag am nañu ne ku mooy wul nag mu daal di ca foree dara ndax euh, sëriñ sëm ca dugal euh, ci doxalin yooyu taxaw seetlu bi tey ñu ngi ko jagleel wàllum xëy ci kaw waajal gi ñeel feet ak premier mai junni jagleel ci àddina liggéeykat yi fii léegi ñaari fan lay doon liggéeykat yeeg risque ak musiba yi leen di fekk ci bërëbu liggéeykaay yi mooy focus beeg télévision Futur Média Ngoné Serigne Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni amoon gan tey commissaire central am Ndakaaru Euh, mu di kon nimiku gu ñu ko ñëwoon euh, ñun si ñoom waa commissariat central ña nga woon ni nga ko waxee âge ca kër Serigne Modou Kara Mbacké njiital euh, PVD loolu nag gannaaw tere gi nga men tere tere nañu ko askan wi di solay tenue ñu jagleel ko kon kot takk der yi loolee ngir matale karange gi nga xamante ni moom mooy taxawal Bamba fépp rafetlu na jàkkaarloo bi nga xamante ni séq na ko ak ndawal bu Radia Talla taalibe sëriñ Modou Kara yi bëri na lu ñu leen di gis ñuy nuróole yu bleu wala yu weex muy lu ñu màndargal ne ñoom ñooy soldaaru jàmm muy lu nguur gi bëgg a dakkal ndax rek lu ñu nuroole ak colinu takk der yi moo waral ñu woo seen njiit ci commissariat central laata ñuy delluwaat ginnaaw daal di taamu fekk ko këram. commissaire bi itam mu wax dëgg yàlla bi mu ñëwee li mu wax mooy mbirum tenue yi daal rek ma ne ko tenue yu nuroo rek wala tenue militaire mu ne ma tenue militaire yi ma ne ko xale yi duñ defe naa ne sax xanaa ay benn benn ñooy sol tenue militaire waaye yi ñu leen di soloo yu weex lay doon parce que euh, lu weex mooy symboliser asalaam mooy symboliser jàmm àjjana buñ fa demee ñëpp lu weex la ñuy sol convocation nag du dara moo taxoon ma ne bu ma fa gis kenn waaye xale yi xaj na li taxoon ñu tàmbali faa bëgg a dem mooy seen sawxa ak seenu cofeel wala yooyu ci kaddu ki sos parti bii di PVD loolu yëpp jaru ko woon ndax moom jàmm rek a ko tax a jóg loolu yàgg na ci dafa nekk lu mu roy eh, te bëgg koo saxal. bu fekkente ne ay tenue militaire la jàpp naa ne xale yi Kara sécurité defe naa ni tenue yi ñuy sol du tenue militaire defe naa ni tenue la yoo xamante ni bi yu weex la ay junuud lañu maanaam ay soldats yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yoo xam ne nag radiyallahu anhu a Cheikh Salihu wax dëgg yàlla 95. maa fa demoon ni ko dama bëgg jëy sun boo xamante ne bi dañuy jàppe sunu bopp ni ña demoon badar ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jox ma rëkkay ba addiwaanu silkul jawahir fi axbaari sarair ne ma mbooloo mi tudd nii woo bi ñu woo Serigne Modou Kara ci commissariat central taalibe yi bi ñu ko yëgee dañu teel a wutali bërëb ba laata ñuy delluwaat say këram bi ñu déggee ni enquêteurs yi dañ koy fekk si

am sañ sol tenue moo xam bu police le gendarme wala militaire société de sécurité gardiennage de ba tax na xamatul kan moy kan mir mi jaxaso lol lolou waral ministre de l'intérieur jóg djel ay dogal ngir dakal mir moomule ci cadre conseiller communication bi. ñi wara a sol tenue yooyu moom mooy ñi nga xamni dañ leen di woy force de défense et de sécurité manam soldats ci alkaati yi gendarme yi douaniers ak ñu ni mel lañ ko jox dañu ko nak may ñeneen. ñoo ñu ko may moy nga xamni ne ñu ci entreprise yi nga xamni entreprise de gardiennage

ñu nekk rappeur wala ñu nekk mbër wala ñu nekk ci confrérie yi wala fu ñu mënti nekk ñuy sol ay tenue te moomuñu ko amul xejj ak seen. jaaykatu marché ponti yi di wéy di jaay seeni tenue militaire ñoom nag dafa mel ni xamaguñu dogal yi yoon jël bees. waaw daanañ ko jënd am na ñooñ dañ ko doon ñëw di ko laaj sax naan tenue militaire lañ bëgg ñu di leen ko jaay. léeg-léeg par benn benn rek ñoo koy laajte wala nga gis benn homme de loi bëgg ko ñëw laajte ko mais du ñëpp koy sol. ak lu mu mënti doon foog sénégalais yi xam ne lépp ci yoon lañu ko teg te ku weddi li ñu wax yoon dina teg ay daan ci sa kaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu conseiller en communication bu ministère de l'intérieur. wàllu yoon goone ñu waxaat ci Thierno Ousmane Sy ak liberté provisoire beneen bu mu am chambre d'accusation kon euh, mayaat na ko neges négas ndiku nee kon génn ci kaso bi mom tierno Ousmane Sy euh, mu kon bi nangul euh, ñu bayiko mu génn parquet nak ñaar yu da ko lankal mu des kon xam bi yon nu muy ak ñetteelu liberté provisoire bobu mom tierno Ousmane Sy mom moo doon xelal njitu rew mu fi nekkon maître Abdoulaye Wade ci walu kon xarale yi

Euh, yëf yi nag euh, fi mu toll nii daanaka tekk-tekk bëriwul ñoo xam ñu ngi ñëw di déposé euh, commission bi nga xam nak nag moom mooy war a saytu lépp lu jëm ci dépôt bi fii ci sous-préfecture ñoom ñu ngi fii ñu ngi sur place na tamit ñetti yu Sénat yoo xam ñu ngi fii ngir saytu nag dépôt yooyu wante parti politique yi fi mu toll ak société civile wala tamit mouvement politique yi jamono ji ñu ñëwagum ñi ñu fi jot a nemmeeku mooy maître Augustin Senghor maître Augustin Senghor ñëw na ak gisam euh, jokkoo defar gore jokkoo defar gore nag day dem kon al yooyu ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar bu weesoo maître Augustin Senghor kii di tamit Demba Diop si ak coalition euh, joxante loxo jàmm gën ak 2014 ñoom itamit déposé nañ seen liste mu nekk benn alliance bu dox tam seen diggante ñoom euh, CFJE ak PVD mais Diop si xamal nañu ne tamit ne am na ay xam ne APR lañ bokk ñeneen ñi tamit ci réew mi lañ nekk parti réew mi ñooñu dañoo ñëw bokk ci listam ndaxte ñoom loolu daal la ñu jàpp ne moom la ñu bëgg a àndal bu weesoo ñooñu am na tamit question ànd sam euh, ànd sàmm liggéey gore moom itam di beneen coalition boo xam ne instant bi may wax ak yow ñoom ñu ngi ci biir di déposer tamit seen liste El Hadj Euh, moo fi jot a amagum xam naa ne nag ñenn ñi dañuy xaar ba nga xam ne ay minutes gi ngi waaj jot comme ni ñu koy waxee rek dernière minute ngir ñëw déposer seen i

demee suñ coalition bi ñu tudd UDZ Kadiamor ça veut dire union pour le développement des de Ziguinchor Kadiamor Kadiamor mooy entente mooy déggu euh, si wolof euh, donc nous fas yéene ànd ak lu ëpp fukk ak ñeenti parti euh, donc ak ay moment, poli mouvement de la société civile yu Donc, on est que. nekk coalition de mag boo xam ne dafa lisi euh, dafa parce que si parti dafa xaw a am doole bi si biir Ziguinchor ñoom ay responsable si mag yu mag 36 quartiers de euh, traité ñun si liste majoritaire à peu près 27 à 26 euh, places anciennes. donc pour gagner, il fallait que ñu def arbitrage dem équilibrer quartier yi quartier bu nekk war a au moins au moins un conseiller donc loolu nekkoon na jafe-jafe su ñun Euh, suñu par suñu biir parti balaa ñu ubbeeku si yeneen euh, allié yi te allié bu nekk war na ko sedd place place bu baax boo xam dina mën a en tout cas bokk si liste bi donc loolu ay jafe-jafe bu mag jafe-jafe bu mag la woon defaat beneen réunion de réglage bu ko defee ñu dem déposer suñu liste te di am yaakaar aussi gagner élection Abdoulaye Wade moom ak pënd bi mu fi jiri fan yi ci wàllu ay euh, ndaje naka noonu euh, mbumbaay ak euh, mbooloo mu ko topp am na ca ñu gis ne fitna la guy jàll naka noonu aw riir donte yeneen ci ay borom yi xam-xam ci wàllu politique ñoom jot na nu mu jural ko njariñ rawatina nam ci dugalee kilifa diine yi seen njàngat yooyee borom yi xam-xam ci wàllu politique di analise ci gëstu Ibrahima Camara Xali Ndiaye. njiitu réew ma woon di Abdoulaye Wade dikk si réew mi mbooloo mu bari dar ko mu gal xeexam si fan yu bari. fan bu njëkk bi moy juridique wàllu yoon fan fànneenu ñaarel bi moy wàllu politique ñettal bi moy fànn médiatique moy c'est-à-dire bu leen kenn ëpp wax ci mbir mi. dole bobu mu woné donut lu deggu ci gis-gisu sociologue bi. donc amna ay force sociale yo xamné instant bi bu ñuy positionné wu seen baat war na dellusiwaat wala seen dara ji yomul war na dellusiwaat ñu créer une tension artificielle pour que ñu profité si cette situation là benn euh, jeu de victimisation euh, qui est très propice nest pas parce que nous sommes dans une société boo xam ne euh, victime dañu ben statut social presque sacré Abdoulaye Wade sol ay dalam dem nemé nemmeeku jik kilifa diiné yi teg si. Abdoulaye Wade dafa am numu don doon di jëflanteeg këru diiné yi té koku force sociale la nak bu am solo ci ngou pour yu mel ni bu amé nga sentir taxaway bi ñuy taxaw sa ginnaw ak niñ lay jappalé dafa créer tension loolu bëgg si crée nu mu créer tension boobu dafa am ay forces yo xamné dañuy am avantage pour ñu mun ñu engouffré wu si tension bobu ñaari at mu gëj ci réew mi. muy woné li ñoo ñomi télé xeyna amul woon contenté ci ni nga xam direction PDS bi boobu ba légui mi ngi koy doxalee combat bobu motax mu prayer ba jamono ji ñew jëlal combat bobu bopam bu lepp weesoo ku ci am ndam ci cappaandaw ba. parce que tension bi mi créé du tension réelle tension artificielle la te processus de victimisation bu muy jël. au début daf lay servir mais après daf lay desservir société mënul mënul lalu si lu dul dëgg donc après à un moment donné tension artificielle bu bu bu abaissé bu bu bu seddee après dafay desservir Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade di wéyal doxante politique am si biir réew mi nguur gi duma yi ko ba léegi mel ni dara xewul. Daara Jolof la ñuy wutali ngoone foofee réeroo diggante ñu dëkkee Nget ak kilifa yu mairie ba. cool yi mi ngi soqeekoo ci projet de lotissement bu toll ci téeméer ak ñaar fukki hectare euh, ca penku ko gox ba ñoom nag xamle nañu ni noppi nañu ngir euh, dem ba ca ca la euh, ngir suuf soosu wéy di des seen loxo Modou Mbaye. gànnaayoo ay xeer ay yet ak ay jaas yi askan wi yeewoo ci quartier bu Nguett ñoom mere nañu loolu kilifa yi nekk ci mairie bu commune bu Dara rawatina kii di maire bi di Pape Alioune Sarr ak Birane Diop mi vice président bu commission domaniale ñoom ñu ngi tuumaal ñaar ñoo ñu ne dañoo bëgg amal benn lotissement bu ñu tegul fenn ci 120 hectares yu nekk ci seen gox boobu di Nguett. bi fi jiitu woon maire bi fi jiitu woon moo bëggoon nañ ko suusi jox ko aw jaamur ma bañ muy 2005 lu mat ñeenti junni xale ci kër gi dëkk bi kenn amul kër ñu dëkkee suuf si ngeet juróom-ñaar fukki at bëgg ko jox li ci des que néew ñu dañ koy jox ay jaamur bàyyi sama njaboot gi maa bañ. vice président bu commission domaniale bi di xam ne ne bëggoon nañ amal lotissement bi ci site boobu depuis 2009 waaye askan wi mosu cee ànd. depuis 2009 la lotissement bi tàmbali woon ginnaaw bi nga xamee ne maire bi euh, ak conseiller municipal boobu jot nañu ay demandes yu bare bare bare ci ay nit. yu wax ne dañoo bëgg ay kër gàllankoor bi ci ëppoon mooy mu ngi jógee ci tey suuf si ngeet si bu tardé ba 2009 ba léegi yeggut lii la ndax ñun xamoon nañu ne jafe-jafe lay di tax déggoon nañu fi mu xew ni équipe bi fi jaaroon nan la ñu defoon aussi. mer ba futtu askan wi yeewoo ci biir ngeet ñu ngi xamle ne noppi nañoo joxe seen i bakkan su fekkee dañoo bëgg a amal lotissement boobu. ku fi dikk nag te jaaroo ci man da nga may rey. looy def soog ma koo def xaw ma ci nag borom dara jaag keneen laa ci yemale ku ñëw daal na ma yeew def li muy def. ngir moytu musiba gendarmerie bu Daara Jolof ak service cadastre bu Louga ñu ngi ñaan kilifa yi nekk ci mairie bi ñu jiital waxtaan ba nga xam ne dinañu gën a mën a convaincre askan wi yeewoo ci biir Ngeet. ba tey ci xibaar yi ngoonee tey jii la bëccëg gi ñu jagleel wàllum pecc occasion ngir télévision Futur Média gëstu quatrième art bi nga xamante ne léegi ngoonee li ma ci jaaxal mooy góor ñi dàq fecc jigéen ñi ah, doy ah, moom war nañ cee wax nag eh, ay expert rek ñoom gis nañ ne daal pecc moomee daanaka am na ci yu xame wuñ ko woon suñu penc mi le rawatina nag léeg-léeg fecc yu salte yi reportage Salimata Aw Seck ci Laurent Mendy fii ci Sénégal fecc mi li ñu seetlu mooy dafa ñaaw rawatina ci xale yi niñ koy defee bu ñu sukkandikoo ci paa bi ji àddina bu changé la quoi àddina bu soppeeku parce que fii mu nekk merci yi laisser aller la quoi lu neex waaye def euh, éducation ba amoon moo amatul loolu mooy premier inconvénient bi quoi. wante nag nañ def ndànk fecc dafa bëri façon li ci ne rek mooy sénégalais yu bëri xamuñu ko. di gis-gisu kii xam-xamam màcc ci wàllum pecc. fi fecc nekk mi ngi fa jógu fa ku bëgg gis fecc bu baax bu ànd ak yar ak teggin ba pare mi ngi fi tamit aussi quoi. style de danse yi bokkul parce que am na yeneen dence contemporaine am na dence sabar moo tax yow sooy waxee peut-être ci danse traditionnelle yi. Euh, traditionnel yi mosul am lu ñaaw. ñàkkum xëy ci ndaw ñi surtout ci xale yu góor yi loolee mën nañoo wax ni moo tax ba fecc mi ñëpp soobu ci. soxna si di ko xamle. ñàkk lu ñu liggéey ba pare tam dañ ko médiatiser torop ba nga xamante ne fecckat yi sax léegi dañoo maanaam dañu am benn punch boo xamante ne. léegi ki nga xam ne sax dafa jàng-jàng ba bari diplôme moom amatu ko fecc moo ne bu njëkk lu ñu rafetlu la woon suñuy maam dañ daan fecc ci anam yu rafet fi mu toll nii nag nguur gi lañ joxoñ baraamu tuuma ngir mu génne ci ay saafara ñeneen xam le ni jamono dafa dox kon dañuy dox ànd ak moom. bonul gaa yaa ngi fecc bu baax bonul bonul fi daa àdduna la dañuy bégal suñu xol. ma ni ku mu naqari da nga zappe. bu fekkoon ku ku fecc ñu jàppale la tëj la ñetti at dootoo gis benn góor bu fecc. <laughs> Pierre Da Silva mom il paraît que xëccal mbal mi rek la mën ñu jall ci taxaw seetlu gi du jagleel accident de travail ci kaw waajal gi ñeel fête première méngoone atum 2013 ñaari junne ñaari téeméer ak juróom fukki cas d' accident euh, professionnel maladie na ko indemnité fekk na ci état bi ci mhm. valeur ñenti milliards ay koppar yu muy faral di fay ñi nga xamante am nañu ay accident de travail ni nga ko waxé 2250 cas lañu ñu xayma ci atum 2013 euh, bâtiment ak travaux publics ak produits chimiques yi gis nañ

lu ëpp ay téeméer nit dee nañ ci 2013 rek laa lay wax. ñi yëngatu ci wàllu bâtiment travaux publics nag lañ ci gën a ràññee. bu weesoo loolu tamit produits chimiques yi ñuy jëfandikoo ci yenn entreprise moo waral mbir mi gën metti secteur yi bare nañu am nañu ci BTP yi ñu ngi ci dénombré bâtiment travaux publics yi am na yeneen secteur mine carrière yi yooyu secteurs yi c'est un peu euh, large na 32 pour cent wu nit ñiy gaañu ci lieu de travail cancer moo koy indi te cancer boobu produit chimique ci atum 2013 nguurub Sénégal dépensé na lu toll ci 4 milliards ci suñu xaalis lolu lepp nak mu jëmlé ko ci indemniser ñi nga xam ni am ay gañu gañu mbaa ñak seen bakkan ci seen bërëbu liggéeykaay. juróomi milliards ci lolu la caisse de sécurité sociale euh, di fay di gérer ci prise en charge yu accidenté yooyu. muy 4 du pays euh, de notre PIB c'est dafa rëy. moonte fi ci Sénégal amnañu ay loi yu wara a yenn bërëb liggéeykaay yi ndaxte daañu jël matuwaay ngir seeni liggéeykat waaye loi boobule dañu gis ne application ba léegi des na. ñu des ak liggéeykat yi bi yoon ñi nga xamante ne ñooy mane baru ñoom nag ay danger di musiba yu bari ci chantier yi nu yëngu amuñu pexe naka noonu li nga xamante ni mooy ay jumtukaay ndax ku ne xam nga ni ñàkk pexe pexe la Fatima Thiam Pape Fall. ñaar ñii di ay uude léegi mu mat ñaar fukki at Cheikh Thiam ak Moustapha Diop di wéy di liggéey ci yilu situation te xam produit yi ñuy jëfandikoo li mu leen mën a gàllankoor. depuis 93 maa ngi ci ko conséquence ci jankontel ciy na parce que matière de matière bi ñuy liggéey dal yi bëri na ay danger quoi col bi amna danger pétin bi amna danger parce que matière bi ngay noyi té amo ay protection yoy protéger sa bakan yeeg yooyu noonu da lay indil problème quoi suñ ko gissone ñukay jaay ci magasin yi ñi jaay matière yi ñi liggé dal yi dinañ ko jënd mais dañ ko gissul baxul pour sama wér-gu-yaram baxul parce que mën ma jox benen fièvre buma ma ci si bi man may fajj sama bop kenn duma jël en charge li ñu mel lañu giss ci maçon yi ñom di liggéey te amuñu gant casque mba sax masque ngir mëna ar sen bop am yene secteur yo xamantene ci si état bi ñom ñoo doon surveiller Euh, ndax ndax euh, ci ouvrier yi am na ñu ay gants am na nañu ay dàll ñuy sol euh, am nañu casque affaire yooyu mais boo xoolee pratiquement ça n'existe plus quoi. ko yoroon mais bu ñu ko yoroon tamit dañ koy utiliser woo ay gants moom léeg-léeg dañ ko utiliser parce que léeg suñ loxo yi xam nga mën naa xaw a yàqu. ca menuisier métallique yi ñoom nemmeeku lu ni mel te xam ni baaraam bu dagg mbaa sax bët bu yàqu mën na leen caa fekk ba ñu fagarawul comme poussière bi léeg doo am masque booy sol wala sa bët yi doo am loo koy aaree loolu yëpp ay jafe-jafe la tolof tolof yi fi nekk ak affaire yooyu doo am moyen boo xam ne di nga mën a jëfandikoo loo xam ne dina la mën a aar. fii ci Sénégal ñu nemmeeku liggéeykat yu bari dañu fulaa loolu li leen di aar ci seen liggéey te loolu mën leen jural ay gàllankoor ba mu tax ñu war cee jóg. wàllu kaaraange nak ci bërëbu kay ngoone kenn du ci njàkk ko moy pouvoir bi ak ñi di njaatige këru liggéeyukaay ñoo war a jël matuwaayu sécurisation ci gis-gisu waa CNTS du changement. Mm, secrétaire général euh, synthèse FC mo waxé nu ni mel mom Cheikh Diop gis ni nag jot na ñu waxtaan ngir yëf yi soti euh, pouvoir public yeeg njaatige yi janoo ndax accident de travail yoy ak jangoro yi soxal yeen liggéey yi war nañ ko fe mëna jëlé ñu teewlu ko ci micro. Sow Ibrahima Kane caméra Laurent Mendy. ay métiers yu nga xam ne ñoo gën a exposé ñoom ñoo gën a euh, ñoom la ñu war a gën a gaaw a aar mooy ñiy liggéey ci ay ci ay bâtiment ci fu kowe ñiy liggéey ci industrie chimique yi ak ñiy liggéey ci transport bi ak ñi nga xam ne dañuy liggéey kaaru guddi ay heures yu avancé ak ñiy liggéey lu bëri bëri bëri bëri yu nga xam ne seen heures yi dafa ëpp ñooñu lañ war a gën a aar. waaye gis nañu ne fii ci Sénégal comité santé sécurité yooyu nga xam ne ñoo daan saytu loolu ci biir entreprise yi yu ci bari doxatul loolu nag justement moo tax suñu intersyndical bi di def liggéeyu sensibilisation ak formation pour que liggéeykat yi ak délégué du personnel yi nga xam ne ñun la gën a intéressé suñu liggéeykat ñoom ñu fexe ba euh, employeur bi réactiver euh, comité santé sécurité nous ñuy vérifier ni mu vérifier sécurité bi ci biir liggéeykat yi ci biir lieu de travail de prévoir aussi accident euh, euh, maladie professionnelle Ngoné Aslëf ci wàllu sport laata ñuy yëkkati jotaay ah, bi ñuy yor rek wàllug euh, basket ak xamante ni moom moo di euh, Gorgui Sy Dieng ñu invité woon ko ci émission euh, bi fii ci TFM sport à la mu xam le ni noppi na ngir ñëw joué ci fii ci Sénégal wàllug assurance it am na lu mu ca weccoonte xalaat ak ñoom Mame Fatou Ndoye moom dafa nekk loo xam ni ñëpp bëgg nañ ko joué. ah sportif boo xam ne loo am am si àdduna te amoo palmarès bu baax moog zéro ñoo yem. Mhm. bëgg naa jouer coupe de coupe de coupe du monde gagné ay gagné ay match parce que boo xoolee Sénégal chaque fois bu ñu demee coupe du monde dañuy teel a ñibbi si waat. xam man mhm. loolu sama jikko man like am am very mindset lu ma lépp lu may def dama si bëgg. Mhm. di am ay résultat yu baax. xam nga samay xarit yi nga xam ne am naa yaakaar ñu ñëw fii jouer. des fois dama leen di wax ne leen bu fekkee dañ ñëw pour aventurer wu ñu toog xam nga man man coupe du monde man maa jël décision pour ñëw bëgg ko jouer entraîneur heure bus bi taxaw ma dugg si ñu nuy acca la ñu ma jouer def fulla ak fayda mhm. loolu mooy sama wàll mhm. am na ñoo xam ne nag nguur gee leen fa teg ñi ngi si yeneen di liggéey seen liggéey ñoom xam ne seen liggéey mhm. nañ ko def man du wax kenn liggéeyam mais sama liggéey du ma xaar kenn mu wax ma ko Haj gannaaw waxtu yi dab nañu euh, ñu taxaw ci basket boobu ngir mën a joxe lenge yi. jërëjëf Ngone ñu daal di gërëm ñi ñu àndaloon ñëpp ci xibaaru ngoon si incha allah ëllëg yeneen i xibaar ci waxtu wenn bi laata loolu la ci kanam tuuti fii léegi ñeent jàpp juróomi minute ci français 20h Sara ak Leya ñu fanaan jàmm.